ami cher internet DKR 221 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax ànd ak di ànd ak yéen ci euh, euh, mbégteeg teraanga bu mat sëkk ci ànd bi nga ànd ak seen chaîne bii di DKR 221 saa su ne dañuy am mbégte di yu gën a yées ci ci ci réew mi di doxantu ndànk ci mbeddu Dakar yi xool euh, kan la ñuy tàllal suñu micro salaamaaleykum sëñ bi waaleykum salaam tur bi naka la Abdou Souran ah, lay ziar maa ngi lay fay d'accord yéen nga phénomène bi présent hier dafa jënd benn benn benn avion donc yow la mooy sa xalaat avion boo xam ne 60 lay jar bon parce que bon Sénégal peut-être euh, am nañu ay euh, yeneen genre de problème yoo xam ni peut-être c'est plus prioritaire mhm. mais aussi dans un autre sens moom dafa louer avion depuis presque un an d'accord avion boobu ay milliards lay coûter aussi en fin de compte mhm. waaw donc bu fekkee day jënd avion avion peut-être man pour man waroon na mën a jënd avion boo xam ne c'est un peu moins cher quoi que benn A320 donc euh, mënoon na jënd avion boo xamante ni nii c'est c'est c'est un peu moins cher quoi man loolu laa mais je ne trouve pas pour man grawul ah de toute façon parce que mom président la mm-hmm. après day dem beneen président bu ñëwee aussi il va utiliser le même avion ou bien comme moom ni mu fi fekkee yeneen avions yi doon président yi doon utiliser d'accord kon euh, yow euh, bokkoo si ñi daan di wax naan ndax loolu de priorité daal non pour man du priorité. actuellement yéen gis nañ fi euh, problème. Euh, pour man du priorité parce que pour man président comme compagnie nationale am na Air Sénégal. tey jii bu doon voyager war na mën a affréter chaque fois benn avion dem ñëwaat. donc c'est soxlawul muy am avion personnel am. man sama gis-gis quoi. man de avion bi bu ma ko déggee damaa tiit. ma xam ne Macky Sall mii. yëgul li ñun ñuy dund. dëkk bi metti na. Mhm. da ngay fàtte sa bopp sax boo génnee ba gis xale yu yi li ñuy daj. nga xam ne si dañuy dox ay kilomètres kilomètres kilomètres 1000 francs sax pour ñu jaay ko problème la xam nga ñoom ñoom tamit buñ déggee comme yow jaaykat nga man damay jaay waa damay jaay waaye dëkk bi metti na lool da ngay xëy ba ngoon jot di dox daanaka 1000 francs pour nga jaay ko sax problème la kon nag ñoom it buñ déggee milliards yi milliards yi milliards lu toll ne ay milliards milliards nga jël ko di ko def ci avion sa ñun ñi buñ añee duñ réyal buñ dékkee nga ci bi nga xool ñun ñi fi nii daanaka ñu si baree baree bare cere la ñuy añee buñ jëndee cere ji si guddi gi mun xëyee lekk seen fonde cere ji daanaka ñu bari moom la ñuy añee ñun ñi sonn nan sonn nan lool na geestu ñun ñi jënd ay avion ak jënd ay oto yu seer ministre am yii nii ba ku si toog si plateau nga ni dëkk bi gonga te fekk na woote ñun ñi li ñuy dund ñoom duñ ko wax réalité bi duñ ko wax li ma bëggoon mooy ñi nga yaakaar ñooñu doon koo kontor ñooñu kontoruñ ko ñooñu la war déglu su fekkee président mhm. xamoon nañu Mhm. bu di fekkee day luy avion li muy fay. Mhm. man su ma ko xamoon dinaa mën a wax si problème waaye bu fekkee li muy fay. Mhm. jënd avion moo gën. war na man jënd avion quoi. jënd avion. waaw parce bu fekkee li muy fay ah. bu ñu ko dee xool. mu amoon avion boppam moo gën a sakkan. ci moom la muy fay. mu jënd avion boobu. Macky Sall nag ñu ko faloon man si ñu ko faloon laa bokk waaye dama réccu lool ndax fi ne nii boo génnee dëkk bi métti na dangay ngay sax sa bopp xale yu góor yi dañuy daw ay kilomètres i pour 1000 francs nga jaay ko rek problème la na gestu askan wi na gestu askan wi sa bàyyi yàq gi moom ministre am nii. si toog si plateau yaa ngi wax lu neex président président moom bu mu déglu la koy neex na déglu jafe-jafe askan wi mooy ñi nga xam dañuy toog si plateau naan ko dëkk bi am na lii lii manqué na fa loolu mooy dëgg waaye man bu ma sañoon yu baree baree bari dina ko bàyyi xel bu baax normal ou pas normal le fait est là def nañ ko ba pare. Mhm. fi mu nekk nii wax ci dootul jariñ dara. parce que paraît-il que avion bi jënd nañ ko bien avant depuis daaw affaire yooyu nañ entamé woon kii c'était en secret kenn yëg ko. loolu kiiwul woon mais xam nga peut-être li fi am aussi li fi am yëpp ci ci jamono yi passé boobu kenn c'était pas prévisible. peut-être bu ñu xamoon ni yii yëpp dafiy am wala bu boobaa peut duñ duñ ko def. mais tamit dans un autre sens que pour aspect sécuritaire et tout. Mhm. soo yore benn avion bu am vingt ans bon euh, voilà quoi et eh, sénégalais la Sénégal la ko ñoo ko fal jox ay prérogatives <laughs> d'accord xam nga donc euh, voilà am na décision yoo xam ne bu ko bu ko bu ko bu ko jëlee on a que dañu on a que peut xam nga mënuñu def leneen quoi. lu normal la lu logique la te c'est souvent soo nee soo nee lii moo normal toujours dañ lay indi leneen lu normalul mais addina dara mënut a sotti kenn mënut a régler ndoo lépp à la fois xam nga lu baax loo xam ne lii da nga koy def à te boo ko waree def rek def ko parce que aujourd'hui coût bi ñuy wax à soixante et quelques milliards yooyu xaw ma bi mu ko jëndee bu ñu dawalee dix ans mu door ko jënd ça va revenir à cent et quelques milliards kon donc loo mën a def rek def ko au temps bi ko war a defee mu ngi nu nga war a jënd kër boo ko waree jënd ren a Dakar à cent millions si attend dix ans tu vas l'acheter à deux cent millions donc pour l'avenir il faut la guerre se prépare en temps de paix moi je félicite le président pour son acte et euh, je le